Yeah, Mr. Axer. Amam. Diaby. Amen. Town gang gang gang gang. waaw léegi prof bee ñaan dédicace naka la. incha allah ñu may rek. waaw may cee ma may baag. waaw. wala leer. la gaan. waaye naa sant. dégg naa la lépp jàmm. waaw ñu ngi bu baax a baax. yaa ngi studio. maa studio ak gars yi ak waaw waaw ouh Julo Julo baal ngay def. ak bees. live bi la ñuy seetaan nii live bi. non man Julo daf may daf dara yow xaaral tuuti rek. non Julo leneen saa yi ñëwagul sax ana gars yi ñoom Youssef. tonton Mélodie yee maa ngi nii ak Youssef. Eh, Mr Youss. naka mu ngeen. naka mu nice. waaye cool yaa ngi si live bi ah? Tarmai kan gini, Mr. Tarmai. Eh, Madzer. mad mad. Kara ini, kara kara. Boy, balai wo, balai wo Balai Mes chers ziar nalo. Waaye ñu ngi delloo ziar na nga xar kanam xar kanam baa ya, ngi nii ñu def ben ben xam nga séance d'étude bi nii ci la bi hmm. ñuy def ben ben de. wa hmm. yon la yon la ne yon la de. Aïcha projet ko mérité la xar kanam bi ñu xar kanam bi nañ leen jam xar kanam bi. ace ace. yaman Wanda on the beat. Biz bitirafet, ki bitirafet. Leșiți din Mă duc mări de astfel Năbulă să mă mărti Ai mă bine Am un nume cu hemi Ai mă cu Ai mă mă Yeah. Nitalong yum yay, dokam kimugon Boral sa yon, balik pakat na kenon nangu doon jaam baro zik dem loos boo amul jot yu añ balaa desit taat bool xar kanam xar kanam tey la lépp pour dem kanam bakaar sañ pour am a xalaatatul àjjanaam joxe na deret sayri des fétiche tur bi dafiy des ku dul làmb munul dej foog muy jëgër banaan gëj laaj la mën a tontu naa la tànn ay mag naa ko wax keneen lu bon jomb naa ko seet sa borom seet sa yoon jobal dawal pour say doom bañ a tàllal ngir say noon yàlla ragal tax ma dëgër bopp band bi la waxtu baa ngi ni doom ñaata ma bett guddi laay nga ñëwee ma dooma seet si balaa xaalis di tee ma fi mën yaa fi mën def doo dee ba romb néew di waxi mën mën sama xel dal jàmm dal jàmm dal tànk demal jàngi baraat suma si kàmb buy jarak jaan xarta nama mandar gow bu koy ne xarak mbaam yar na góor dañ ko jongal waa jigéen waruñ ko xarab faal gëmuñ seen bopp di waat si yàlla ak yeneen tii dañuy dagg seen